te wax nan Macky Sall dafa bëgg def troisième mandat wala dafa def quatrième kooku da ngay bëgg wax la nga xam xamoko xeybu la dal man da nga bëgg dugg ci gamba nga xam ne nga yow xamuloko nak nga dugg ci nga ko mo gën parce que Macky Sall moy président tout le Sénégalais. yow ki ki nga bokal mu ne la diw amul droit def troisième mandat nga dakh ko kon da ngay créer doute ci nit ñi honnêtement wala dal mi créer doute quoi ken gëmul nii ken man dé awma yaakar ni Macky du du def troisième mandat awma yaakar bu dana ko def de waaw ma loolu laa jàpp sama avis quoi dana forcé def ko. la ma mën jàpp mooy la mu wax ba keroog parce que moom bu amee ay 6 mois walla ay 7 mois lay am amagul sax un na ñu commencé te 5 ans la war a def ñu commencé na ay ay troisième mandat man sama gis-gis la mu wax laa gëm ba ma gis leneen. Euh, moom moo waxoon wax bi wax naa ko weesu naa ko ba kenn waxaat kon te wolof daf ne waxtaan na neex borom kër. bu si waxaat bu si waxaat ku si waxaat ku ne da ngay daal di tooñ Macky Sall parce que si sama gis-gis laay wax de si wax parce que moom mi nga xam ne mooy njiitu réew nee na doot si waxaat kon nañ ko bàyyi moom mu jëm mu continuer fa dem fa mais ëllëg ku si wax xëy na moom moo si waxaat. wax na li muy wax ba pare ñoom dañu waroon a topp rek finance bi président wax ndax kilifa su toogee ne man lii laay def wax ko ñëpp dégg ko c'est pas la peine sax nga ciy defaat débat quoi su fekkoon dañ ci am sikki sàkk nga ne waaw mais moom moo toogoon wax ne man ñaari mandat laay def clôturé nañ ko kenn mënatu koo soppi njabootam lay mën a bëggatul kenn wax ci loolu vraiment defe naa wax ci yee fitna la ak invitation boo xam ne ni jëru ko moom moo ne woon nul ne peut faire deux mandats successifs au-delà de deux mandats bon loolu ay waxam la quoi maintenant boo amee diversion gars di duute ci li ci la parce que mom dafa yag dig ay sénégalais gisuñu ko motax ñuy duute moment bi et puis c'est le moment de le dire aussi hein c'est le moment d'en parler ku nekk xam li ngay def ku nekk xam li ngay xalat ainsi de suite du fait tam mi gëna créer doute bi ci ku ko wax ci parti am ci pouvoir am mu dakh la ku wax 3e mandat ci côté mu dakh la kon ça ça sème le doute amul sens parce que man sama gis-gis amul luñu wara wax leneen lu ëpp sens lolu parce que déjà réew mi dañ ko wara liggéey pour mu avancer mais wax kese kese kese dafalu ko foo ñuy liggéey. comme président dañ koy dogo fal actuellement si 7 sept mois la defagum. léegi boo souligner problème ay 5 deuxième mandat troisième mandat mais est ce que nit ñi danañ liggéeyati sax wala est ce que gouvernement bi ñoom danañ liggéeyati sax. mom la fi yalla tek ko newul niñ ñu ko waxee mën-mënam newul dooleem newul xam-xamam yalla moy tek fi nguur mu xam lolu quoi. Té mu xam ni dam peuple bi mooy chef c'est pas lui le chef du de la population. na yërëm population bi te li amoon 2012 bañ fee amaat ñi ñi di dee jaru pouvoir jaru ko na jéem a rafetal xool ku koy succédé moom fële mu teg ko gars dem élection bu normal si jàmm Sénégal daal jàmm rek la war am quoi.